nañu ñu teg koon ay surgaay kirist di ay jawriñ yuy xamle mbooti yàlla li war ci jawriñ mooy mu takku ci liggéeyam ngeen àtte ma walla ñeneen àtte ma amaluma ko solo te man sax duma àtte sama bopp sama xel yedduma ci dara waaye loolu taxul ma jub ki may àtte mooy borom bi looloo tax bu leen daan kenn ci àtte balaa jamono ji di jot te borom bi ñëw mooy leeral li nëbbu ci lëndëm gi di làññi mébétu xol yi bu ko defee ku nekk dina jot ci yàlla ngërëm li mu yelloo mbokk yi ci loolu ma leen doon wax lépp nag misaal naa leen ko ci apolos ak ci man ngir ngeen xool ci nun ba xam li wax ji di tekki bu seen xalaat weesu li mbind mi wax du màggal kii suufeel ki ci des ndaxte yow ku la def ba nga gën a màgg ñi ci des loo am lu ñu la mayul te bu ñu la ko mayee lu tax nga di ci tiitaru mel ni mayuñu la ko yéen suur ngeen xaat boom li ngeen xaat tàmbali ngeen di nguuru te ak seegunu cey ni ma bëggee ngeen di nguuru ba mën bokk ak yéen di nguuru xalaat naa ne nun ndawi kirist yi yàlla def na ba nu mel ni nit ñu ñu jàppe ci xare te mujj ci sàppe yi ñu dogal seen dee nuy ceetaanam mbindeef yépp muy nit muy malaaka nun teg nanu nu ni ay dof ndax kirist waaye yéen am ngeen xel ci kirist néew nañu doole waaye yéen am ngeen doole nawees na leen waaye nun dañu noo xeeb ba fii mu nekk danoo xiif mar te rafle nu ngi nuy dóor te dëkkunu fenn nu ngi ñaq di jariñu ku nu saaga nu ñaanal la lu baax coono bu nu teg nu tegoo ko ku nu ñaawal ñu tontu la lu rafet fii mu ne noo mujj di mbaliti àddina di ñu ñàkk njariñ ci lépp binduma leen loolu ngir ngeen am yaraange waaye dama ko def ngir artu leen ndaxte yéenay samay doom te bëgg naa leen su ngeen amee junniy njiit yu leen di sàmm ci kirist ba tey benn baay rekk ngeen am ndaxte maa leen yégal xabaar bu baax bi ba jur leen ci kirist kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen roy ci man looloo tax ma yebal ci yéen timote mii sama doomi diine di doom ju takku te ma bëgg ko dina leen fàttali ni may dunde ci kirist te mu dëppook li may jàngale fu nekk ci mboolooy ñi gëm ñépp am na ci seen biir ñuy tiitaru di xalaat ne duma dellu seeti ci waaye bu soobee borom bi léegi ma ñëw ci yéen te seet borom tiitar yooyu waxuma seen kàddu seen doole laay seet ndaxte nguuru yàlla du waxi kese waaye doole la lu leen gënal ma ñëw ci yéen yor ab yar walla ma ànd ak mbëggeel te lewet